salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakarnet ginnaaw bu ñu leen nuyoo tey ñi ngi fi nga xamante ni euh, mooy parcelle unité 25 ci kër ki nga xamante ni mooy seydaa Aram Diouf euh, di yëngu ci wàllu ñaan waaye balaa ñu sori ci waxtaan bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu Dakarnet ñu ñëw ci yaatal bi yaay booy maa ngi lay nuyu di la ziar baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa site bi euh, Dakarnet maa ngi leen di nuyu di leen ziar beneen yoon. di leen wàccee seen wàccuwaay waaye di nuyu kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi di nuyu mbokk internet yi euh, Facebook Instagram TikTok di nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan waaye di nuyu sama taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ak ci biir réew mi bitim réew nag macha allah ñoom ñoom ma njëkk a xam sax que biir réew mi. Mm-hmm. di leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla képp koo xamante ni woote nga fi wala nga wax sa soxla fii yàlla na ko fi yàlla fajee ci barke Seydina naa sallallahu alayhi wa alors balaa ñu ñëw ci wàllu ñaan wàllu seet euh, ak wàllu xam-xam euh, ñu ñëw ci actualité bi ndax ku ne xam ne da ngay faral di liggéey ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñenn ñi ci politiciens yi donc actualité bu ñu ci duggee gis ngeen ni Ousmane Sonko fan yi xaw am ay jafe-jafe benn nañ ko côté Ziguinchor gis nga tamit démb otoom daal di def soog ba ñaar nit génn si ñàkk ci seen bakkan donc mbiri Ousmane Sonko naka nga ko gisee. waaw Ousmane Sonko macha allah maa ngi def benn émission barki démb euh, te dama doon waxtaan ak benn journaliste. ma ne Ousmane Sonko de waxuma nag yàlla macha allah lu nekk mën na ko defar mu baax te ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla musal ko ci cat musal ko ci seytaane waaye gis nañ ci moom loo xamante ni su jugul ci boppam waxuma élection législative yi de vingt 2024 boo amul essence du ko fekk loolu moom man maa la ko wax ndaxte géntal naa ko benn gént boo xam ne gént bu garaaw la gént naa safara di tàkk ci biir këram te safara si guddi baaxul ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ci yàlla sotti ndox bu sedd guyi waaye tamit mboolem ku muy àndal na wut ci mbukaay du moom kase du Ousmane sonk rek Ousmane sonk na jóg ci boppam waaye mboolem ku muy àndal moo xam garde corps nga wala koo xam ne ci bureau mi ngay liggéey bul bàyyi sa bopp kenn ci ñoom bu mu bàyyi boppam ndaxte daal gis naa seytaane mu leen di song te seytaane soosu yàlla na ko yàlla xaj ci barke Seydina naa sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee nekkul moom kese dafay jàkkaarloo ki nga xam ne mooy président Macky Sall mais dafay jàkkaarloo waa France ndax système bi lay faral di xeex mm-hmm. ñenn ñi sax ñu ngi wax buy tuddaale formation yooyu alors xeex boobu mu simmu noonu ñan nga gis ñi ñoom ñoo ko si nar gën a sonal état bi la wala Ousmane Sonko moom xam na lu koy xaar bu baax mm-hmm. macha allah mm-hmm. ndax dama ne buy def déclaration rek sax waxuma sax Sénégal ñooy tiit waaye àdduna bee tiit waaw ndaxte moom dafa bëgg a ñëw pour sauver Afrique mm-hmm. parce que Afrique nag suux nañ suux goo xam ne mm-hmm. ku mel ni Ousmane Sonko rek moo ñu ci mën a génnee mm-hmm. kon moom ñetti combat mooy dafay jàkkaarloo nguur waaye dafay jàkkaarloo franc-maçon waaye dafay jàkkaarloo France te France nag képp koo xam ne bëgg nga dagg seeni intérêt duñ la bàyyee noonu duñ la bàyyi moo xam ci côté mystique la euh, moo xam ci côté euh, physique la moo xam ci côté physique la duñ la bàyyee noonu kon lu ma koy wax daal mooy ne yokk kaaraangeem d'abord. Mhm. waaye tamit na nag mystique. Mhm. bu mu bàyyi boppam ci benn yoon. Mhm. parce que li mu jàkkaarloon moom ku ko jàkkaarloon faaw nga jóg sa bopp. boo yaafu see ñu rey la te accident yi damay wax ne am na accident yu bari yoo xamante ni du naturel. am na yoo xam ne moom dëgg la yàlla moo ko dogal waaye am na yoo xam ne mystique la am na yenn xaatim yoo xam ne soo ko bindee mu mm-hmm. nekk nen nga teg ko ci kaw tali bu ko oto yéegee ka nga fa tur bind turam mm-hmm. buy dugg ci oto day def sox bul sax sonn mm-hmm. am na beneen mystique boo xam ne boo ko dugal ko ci paxu garab wala nga gas bu mu xóot nga dugal ko ci benn xaatim boromam fu mu jaar dugg kaso kon ñaar yëpp dana ci fexe mujj mooy day def ay tournée Sénégal waaye na ut gàllaaji oto ñaareel bi yoon ba na ut gàllaaji kaso Mhm. bu muccee ci ñaari daal 2024 incha allahu taala dina ko fekk. Mhm. yàlla mën na ko dimbali. Mhm. alors euh, mi ngi mi ngi noonu ah, di si ki nga xamante ni mooy euh, Seyda Aram Diouf nekk fii ci unité 25 Parcelles Assainies di yëngu ci wàllu ñaan comme ni ma leen ko waxee woon noonu alors bu ñu gënee avancé tuuti Marème Faye Sall euh, ki nga xamante ni moom mooy njiitam président Macky Sall moom loo ko gisal rawatina soxna si tamit. waaw président Macky mooy njiitu Sénégal. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla tamit macha allah moom moo am jàmm yàlla na ci dëgg tànkam. Mhm. ndaxte su ma nee moom moo am jàmm moom mooy borom réew mi. Mhm. moom moom armée moom moom police moom moom gendarmerie. kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla may ko dal. may ko tamit ak teey ndax njiitu njiitu réew en chaque fois damay wax ne du fayantoo. su fekkee ku la lebal lu bon nga fay ko kon su yàggee yow doo defal kenn lu baax. nit ñi danañ la jëppi ba pare li ngay gouverner tamit du dara nit ñi ba pare li ngay liggéey sax du feeñ. te macha allah fa la mu ngi jéem a góorgóorlu waaye nag soxnaam moom. Mhm. damay wax ne à chaque fois na jóg ci boppam. Mhm. ndax ku lay xeex yow sa jëkkër. Mhm. bu sànnee misik soit mu jël dal sa doom. wala mu dal sa jabar. kon jabar ji warul bàyyi boppam warul yu yaafus. Euh, wax naa si benn émission ne géntal naa ko moom tam benn gént. na jóg ci boppam te mu saraxi nag bu weex. fu mu ko mën a sàmmee nag sarax fa baax na. Mm-hmm. du question ne man damay laaj sarax man laajuma benn sarax mm-hmm. waaye lii moom gisal naa ko na jënd nag bu weex mm-hmm. mu saam ko saraxe ko yàlla sotti ndox bu sedd guy ci Sénégal ndax Sénégal daal li fiy xeeñ neexut wax dëgg yàlla xaw ma nag ñi xamul dara waaye ñi xam dara moom ñu ngi yëg nañ seen bopp ne Sénégal gii stable normal <laughs> alors bu ñu ci sarax boobu sax la ñuy continuer bu ñu ñëwee ci wàllu sarax comme euh, da ngay faral di yëngu ci wàllu sarax donc ci wàllu sarax dafay dimbali ab jullit. Mm-hmm. rawatina sax koo xam ne du jullit. Mm-hmm. ndax tey mën nañ ne tey jii la sa fan di yem. Mm-hmm. nga génne sarax yàlla yokkal la say fan. kon sarax lu baax la. nga doon tey am ab accident boo xam ne war na la dal nga saraxe yàlla musal la ci. nga am noon boo xam ne da doon lay fexeel pour ñëw sa kër. rey la wala mu agressé la wala nàngam sàngam. nga joxe sarax yàlla musal la ci. kon nag damay wax ne sangu. Mm. saraxe wirdi lii mooy maye wërsëg mm. waaye mooy maye mucc tamit mm. kon nag nañ yokk suñuy jaamu yàlla waaye nañ yokk suñuy suñuy sarax mm-hmm. sarax nag lu baax la ci doomu aadama moo xam sarax boo xam ne dañ la ko tegtal moo xam sarax boo xam ne da ko génnee ngir yàlla mm-hmm. kon nag nañuy fonk sarax mm-hmm. alors xam nañu tamit danga yëngu ci wàllu seet euh, boo ñëwee ci wàllu seet lan nga ñu mën a wax ci wàllu seet waaw seet nag mooy buntu ñaan dama ne booy dugg ci kër faaw nga fëgg ñu ubbi la kon nag ñaan yàlla bunt ba seet la tudd hmm. seet nag dafa bëri ay façon hmm. am na ñoo xam ne dañuy seet ci suuf hmm. am na ñuy seet ci ramlu am na ñuy seet ci tomb man nag seet ci petaaw laay def kooku moom jagle laa ci am amul sikk sàkk depuis depuis deux mille trois deux mille quatre ba léegi maa ngi ci seet boobu boobu maa ngi nekk xale am ay dix huit ans ay seize ans yooyu kon yàgg naa ci seet petaaw seet pettaaw nag yàlla may na ma ci loo xam ne mayu ko ci kenn dama ne man Sénégal bu dee fukki seetkat moo fi nekk man maay première te yàgg naa ko wax te deltuwuma ci ginnaaw mm. moo xam réew boo mën a noonu mm. daal ak sa tur yaay moom laa soxla mm. dinaa la seetal wax la loo xam ne du loo xam ne dama koy làmbatu wala dama koy lamlamee mosuma seetal nit mu ne ma yaa sey daal li nga ma seetal nii leerut amagut képp ku ma seetal da ngay wax ne est-ce que maa gisoon bala nga maa seetal kon man seet du sama problème te buñ na seet pettaaw nag dafa lënkaloo ki jinne lënkaloo ak ay rab mm-hmm. seet petta pettaaw n'importe qui du ko def mm-hmm. nit mën na yor ay pettaaw di foo bokkut ak seet mm-hmm. seet pettaaw boo nekkee ci biir néeg nga gësam pettaaw kenn nekk ci biti tam mu mën a seet bu pettaaw yëngatoo xam na li pettaaw yi di wax kon seet pettaaw du lu ñuy làmbatu faaw nga xam pettaaw faaw nga lënkaloog ay jinne pour nga mën a liggéey ci pettaaw kon nag seetangoog alors mi ngi noonu numéro téléphone bi maa ngi noonu mi ngi noonu si baaru écran bi mën ngeen ko woo téléphone ngeen seet ko macha allah bu jëflanteeg yéen eh, doo leen ko rëcc alors bu ñu gënee avancé tuuti ci wàllu garab yi nga xamante ni moom ngay faral di jox eh, ñi nga xamante ni ñoo lay seet si mën nga ciy jox tuuti explication. waaw garab nag am nañ ci ay façon yu bari. Mhm. moo xam ci càngat la moo xam ci garabu ngóora la wala bu ndoxu siti. Mhm. garabu ngóora nag am nañ ci butéel yoo xam ne dañ koy joxe am na ci boo xam ne ñaari façon la. bii dañ ko liggéeyee lem ak la mu àndal. Mhm. du kafe nga ciy jël 18 heures ci ngoon nga koy lekk. Mhm. am na beneen boo xam ne kaasu attaaya nga ciy naan. bu dee ndoxu siti la nag moom dañ ko traité comme genre lipton. Mhm. da ngay jël dosage bi dañ ko def test ba labo yi yëpp ñoo ko validé na baax na. Mhm. boo ko dugalee ci biir ndox bu tàng. nga bàyyi ko ba mu yàbbi nga suukaree ko lem. bu fekkoon say weet ñuul sax macha allah dina weexaat. kooku mooy garabu ndoxu siti am nañ garab yoo xam ne nag dafay toj liggéey. ba jëndu bay tabaski lañ ko defaree. bu dee góor la da nga koy takkee ci sa wàllu droite bu dee jigéen la sa wàllu gauche nga koy takkee boo dàndee liggéey bi 15 mètres day toj te 15 jours nga koy takk nga tekk ko kooku moom amuñ ci laam-laamee beneen bi ci des gàllaaju tul la ak bu paaka ak bu jaasi béjjënu bayu tabaski lañ ko defaree day ànd ak melentaan booy ñëw moom faaw nga for melentaan indiwaale hmm. loolu moom mënul ñàkk soo ñëwee ñu defaral la bi nga takk ko ci sa ndigg bala nga koo takk nag dañ koy takkal benn béy wala ñu takkal ko benn ginaar. Mhm. ñu tiire trois fois. Mhm. su jàpput nga jël sa gàllaaj nga dem nga doo ko fay sa xaalis noonu lañ koy liggéeyee. Mhm. loolu mooy gàllaaju tul bi. lan lan mooy liggéey yan xeetu mbir nga yoo xam ne day toj liggéey koo xam ne dañu ko liggéey ba mun ba liggéeyam di yàqu wala koo xamante ni lu mu lijjanti mu të kooku nan nga ko mën a jàppale. loolu mooy béjjinu béyu tabaski bi mi ngi nii béjjinu béyu tabaski la béy boo xamante ni béyu tabaski. moom la ñu rey nga fëq béjjén ya weer ko ba mu wow nga jël xaatim bi dugal ko ci biir nga jox ko koo xam ne dañ ko liggéey ba mu yàqu moo xam mu dof wala koo xam ne dafa feebar wala koo xam ne palaasam dafa daanu sax mën a tuta jógaat béjjén bii la ñuy dagg ñu jox ko ko boo ci dugalee xaatim bi bu ko boromam takkee mhm. inchaa allahu taala liggéey ba day toj 15 jours laa ko may inchaa allahu taala mu toj mhm. kooku moom amuñ ci sax parce que dañ cee am ay résultats yu dul jeex mhm. nga jënd ta bayu tabaski yombu taam mm-hmm. parce que tabaski ba tabaski nga koy am mm-hmm. moo tax bu période tabaski gi passé rek lañ koy mm-hmm. commencé di ko liggéey lu dañ ciy dajale nag lu bari fii ba Saalum dañu koy dajale di ñu koy indil ay saako lañ ci am wante nag ku bëgg sa liggéey toj daal béjjunu bayu tabaski ngay indi xaatim baa ngi fi boo ñëwee ñu bind ko defal la ko ci boo ragalee ne dañ lay liggéey boo ko takkee 15 jours mu dañ su fekkente ne tamit da nga ragal maanaam bëggoo ku la liggéey moom tamit danga koy gànnaayoo rek moo xam da ko dugal sa saak wala da nga ko takk incha allahu taala day dañ. Euh, lan nga lan nga jàpp ni war. jaam yi. waaw jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci sëy nekk ci seen biir kër yi moom d'abord li ñu leen di njëkk a dénk mooy muñ dama ne ku mënta muñ mënoo sëy mm. parce que muñ mooy baasu sëy mm. ndax bañ la muuree génnee la sa kër bàyyi nga commencé dund ay soufrance di dundu tamit ay naqar kon muñ mooy baas bi waaye tamit nga ñaan lu tey saraxe ndax fi ngay sëy bëgg nga fa njaboot goo xam ne dañ leen di yónni kon faaw ngay saraxe faaw ngay muñ waaye tamit na ut ay ñaan yàlla lu la jubalee sa waa kër waaye tamit lu la jubalee ak sa ay nit loolu nag am nañ ci ay secret koo xamante ni ñëw nga fi nga doon sëy ci kër goo xam ne dañ laa bañ dinañ la jox benn saafara boo xam ne danga koy sotti ci lekk ñëpp lekk ñëpp ànd juboo te loolu moom macha allah dañ ciy dox man nag du ma dox ci tàqale waaye luy jubale moom secret yooyu moom macha allah am naa si yoo xam ne yu efficace la kër goo xam ne dañ doon xuloo buñ ko lekkee ñëppay juboo kontaan nañu baax baax ci waxtaan waaye nag leneen ci yow te bëgg nga ko xam euh, boo ko woowee téléphone numéro téléphone wax mi ngi noonu wax naa leen mi ngi ci baaru écran bi boo leen ko woowee rek ngeen seet ko fii ci unité 25 euh, dina jëflante yéen te macha allah ñu ngi koy woowee fu ne ci àddina bi ngir euh, mu dimbali leen ci wàllu ñaan bi nga xamante ni ci lay yëngu yaa Seyda kontaan nañ bu baax a baax lan ngay tëjee waxtaan bi waaw di tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo waaye képp koo xam ne yaa ngi dugg oto moo xam da ngay yi moo xam da xëy dem liggéey juróom benn inna anzalnaahu fi laylatul xadri mooy da ngay joxoñ sa kanam joxoñ sa gannaaw joxoñ sa ndeyjoor ak sa càmmooñ ci kaw ak ci suuf boo ne bisimilah rahmaani rahim yéeg incha allahu taala dinga wàcc si jàmm yal nañu yàlla musal ci deeg accident ndax lu metti la. yàlla defal ñu jàmm ci réew mi sotti fi jàmm élection yi ñuy jublu si yàlla na ci yàlla sotti ndox bu sedd guy waaye tamit képp koo xamante ni macha allah yàlla def na nga gañe incha allahu taala yàlla na nga gañe te am ndam la ci jàmm bu mu jur benn fitna asalaamaaleykum wa rahmatullah